cœur mooy base tout moo tax ñun dañu bëgg ci journée mars bi tamit profiter wax ci euh, dépistage précoce bi ndax gis nañ ne personnes affectées par la lépp yu ci bëri dañ leen a dépister tardivement ndaxte euh, ak ñi nga xamante ne ñoo fi yor ci wàll santé médecins yi am na ñoo xam ne xamuñu ko surtout les villages les plus reculés du Sénégal dëkk yi nga xam ne ñoo gën a sori suñ doon soo amee ah, tâche duñu xam ne wala soo amee les signes précliniques de la maladie duñu xam ne lii lèpre la te loolu dafa lay jural ay handicap te loolu dafa indi tamit ay bedd société bi beddi la ndax dañoo xamul moo tax ci loolu euh, dañuy jàll foofu pour euh, pour pour euh, wax ci sensibilisation bi mu nekk benn aspect bu important sensibilisation bi suñ koy wax dañ ko war a def en trois étapes euh, dañu war a sensibiliser les acteurs de santé mais ñu sensibiliser tamit population bi nga xamante ne ñoom xamuñu mais malade yi nga xamante ne feebar nañ ba pare te xamuñu nan la ñuy jëlee seen précaution ci sensibilisation bi tamit dañ ci boole population bi